yéen a ko gisandoo samay morom laa taxawal nag sama génération laa taxawal ñun ñi nga xamante ne nii bu waali wootee dañ koy wuusi ndax mën woyam ndax am baat ci réew mi ndax mën liggéeyam moo tax tey ma ñëw seet seet si samay jantal maali balaa ma ne di laaj dara nag bëgg naa nga jëlal ma ci suuf yéeg ak moom ba ca kaw wala sama jantal maali sañse rek la ñuy def gis nga gis nga lu ñu def simple amul dara lu xumb cim jëlal ma jëlal ma ci ginnaaw xoolal waa ji jàllaaba waaw ba tey xam nga may laajte aussi bisu tey bii lan ngeen gis ak lan ngeen yëg bisu tey bii le 27 comme anniversaire Wally Seck. waa neex na la mel. Wally moom. waaw ni réew mi ñëpp daanaka ñoo kontaan ci Wally bu wootee nit ñëpp ko wuyu si ndax liggéeyam bu rëy bi muy def ci réew mi ba tey gaañu tamit boo amee ñaari kàddu ñetti kàddu yoo ci sànni rek aha lem zo wali mom aha borom simis bu bleu bi <laughs> mais album mu bes mu mujjé génné tay ji ni ban morceau suma la doon wax dang ci trois symphonie bi taxi love mais gis nga mbeugel dafa xej ci mbeugel bo xaw ci la ci ci ci ki bi ci ci ci ñepp day won yobante mom daanal na taxi love mais gis nga ni ba tay gaay ñoo ngi ci taxi love parce que aduna leppay aduna beugel la waaw daf may dal tamit tay beugel li neena la daf may dal moy beugel kon moo ne woon la 27 dina woote Grand Théâtre gis nga woote na nit ñi wuy si nañu yéen ko gisandoo xaramaare bi nga xamante ne saa yu wootee nit ñi ñëw wuy si ko ndax que gis nañ liggéeyam ci réew mi mais ñi nga xamante ne ni tey dañoo ñëw pour teew ci bis bi ma leen di laaj rek lan ngeen yëg ak lan ah, a neex moom ñu gisee nii nit ñi bëree nii taw beeguñu porte bi dara xewagul moom am nañ si yaakaar dina neex waaw dañoo ne wolof njaay nee na cin bu naree neex bu baaxee xeeñ waaw tey jii nii ban mbooy ban mbooy ngay xaar tey ci album bu bees bi. man lépp booy yëpp ngay déglu. kii moom nee la amul choix ci album bi lépp ko neex. lépp ma kontaan yow waaw. yow beneen yoon incha allah. Ah. waaw gis nga dañuy def nii rek sumi dàll yi rek ndax mois bi day metti jëlal ma sanction bi voilà jëlal ci suuf ba ca kaw rob la maye waaw gis moom dafa dëgër fit gis nga. li lay mujjee jël ne kii xarit la ci moom ñoom it ñoom ñoo ànd rek daal di ñëw ci bisu Wally tay bi le 27 comme nee la ba tay euh, bu woote le 27 Sénégal ñëpp yëngu ñëpp koy jógandoo ñëpp ñëw ñii si ba tay ma jël sama micro dégg ko sama jigéen soxna si tey loo yëg ci bisu tay Wally bi waaw tey dama fi ñëw euh, mbégte ak contentement bu mag a mag macha allah waaw waaw dañoo ne cin bu nar neex bu baaxee xeeñ ak li nga jot a gis ak ak ak ak nit ñi nii lan nga nga gis ci bis bi tey. waaw bi xam nga ay mbiram moom du mën a yomb. dëgg la ne le vingt ah. ñu delloo war rek jël bay baykat. Ah. ndax ba ñu jàppee 2009 ba 2019 ba tey. Ah. fi ba tey jo moom li mu jot a woy yëpp ban woy moo la mën a ban ban woy moo ci mën a yëngal quoi maanaam tey boo ko yéegee rek waaw mooy loolu tax moom lam ko way yëpp neex na ma waaye taxi love moom macha allah yaa ngi gis ku ne ak sa soir album bi nee naa la on titre moo ci nekk ku ci nekk ak bi nga jël moom nee la taxi love peut être am na ku muy loobantel am na ku muy nobantel waaye loolu moom moo koy mënul taxaw taxawaay bu baax tamit foog ñuy bàyyi xel ci ñoom aussi quoi parce que ñoom dañuy ñëw dañuy taxaw tuuti seen tànk di métti ñuy toog lii aussi nit ñi war nañ ci bàyyi xel saa yu waali woote yu mel da nga gis eh, ci ci ci biir salle bi quoi waaw mais dara ba tey maa ngi sama benn jigéen aussi ah, war koo laaj aussi moom nan la gisee euh, bis bi tey jii nii lan nga lan lan nga yëg lan nga yëg. Ah, bu rëy bu rëy. waaw day di bis bi. Ah, mais lan ngay xaar tey ci bis bi. Duda Amina. Duda Amina moom mooy sa morso. waaw moom nee na Duda Amina mais album bu bees naa Duda Amina newu ci bon bëgg naa nga tànnal ma tamit benn morso ci ci album bi. kii nee na moom ame Amina bi moo koy yëngal ay way nii la war a mel kon yooyu ni nga def bis nii rek la war a mel cum kontaan ci yow dinaa naan café ay jëlal ma borom café gi